naaw ba mu ñamee concert casserole bi nag Ousmane Sonko di changé bile yoon beneen takti leaderu Pastef bi nag di woote bile yoon ngir Sénégalais yi def ay journée morte mooy xëy bañ a liggéey bu fekkee ni nag révolte bu njëkk bi jàll na bii nag daanaka sénégalais yu bëri ñu koo topp. du ma ne mënta nekk waaye bu ko buñ ko defee dina solo ñu baree baree baree baree parce que nit ñi nga xamante ni benn dépasse la ñuy daw xëy wutaat beneen ba boo toogee trois jours danga ko bëgg rey xam nga kër moom mënoo ko yore toog na boroom toogal ñetti fan yoo xam ne doo dem liggéey. man du sonk du Macky Sall sama teraanga nekkul na ñoom ñoo ma koy jox kon ñoom nekkul na ñoo ma yàqal sama liggéey dafa jot nit ñi xam ne politiciens yi ñoom mataar réew nag moom nee na noppi na ngir rek dakkal njaayam bi bu fekkee ni nag combat bi Ousmane sonk di woote lu ne ñëpp la ndaxte moom nag jàpp na ni politiciens yi dañuy utiliser rek sénégalais yi ngir seen bopp. saa bu ñu si waxee askan wi dañuy taxaw di génn di wax quoi mais ñoom du xeex la askan bi jamono yi nga xam ne ceeb bi yokku na suukar yokk lu bari manqué ci réew mais duñu gis benn politicien boo xam day génn wax mais boo xale yi demee grève sax bu enseignant yi grève duñu gis benn politicien boo xam day génn di wax. ñeneen ñi nag ñoom teguñu benn condition ndaxte wóolu nañ bu baax leaderu Pastef bi te nag noppi nañ koo topp ci lépp lu mu wax dem sax ba daanu ci seen liggéey. so Sonko bu wootee loolu man jaral na ma ko quoi waaw parce que ñor quoi. ma jël li ma li ma denc ma jël ko dund ci rek ba trois jours yi mot. stratégie bu bees bi Ousmane Sonko tegal nag daanaka xaajale na commerçant yi ci marché Sandaga ñenn si ñoom nag jàpp nañ ni forme bii nag nekkul bu baax bi te di ko woo moom mii di jiitalu Pastef ngir rek mu indi wàllam ci fay tension sociale ak politique bu ñu nekkee jamono ji fii ci Sénégal.